peut-être euh, ñàkke ko teggin. non en tout cas ci wàññi ko ci ci doy ci tolluwaayam. ci li ma comprendre. Mhm. dès le départ dès le départ euh, pouvoir avait décidé par la voix du président de la République ne duñu communiqué ci affaire bi joxe ndigal ne bu kenn wax ci affaire bi. Mhm. mais bizarrement c'est ce même pouvoir moo jël ay garantie euh, am fu mu loger Adji c'est ce même pouvoir. moo jël ay takk der pour ñu surveiller Adji Sarr c'est ce même pouvoir entre guillemets qui prend en charge Adji Sarr d'ailleurs sax ce pouvoir la moo nekk un peu di euh, mën nañ jàpp sonal ñi nga xam ne ñu di woy takk der yi parce que dem nañu ba ci garde Adji Sarr rek ak mettre ko dans les conditions de l'art gendarmerie ak police jàppante nañ ci jour procès bi waaw mais loolu ma ma ñëw ci mais li ci gën a yéeme mooy tey jii c'est ce même pouvoir ñoom ñoo doon toog ci plateau yi euh, ñoo doon toog ci plateau télé yi euh, fu mu gën a méttee fu mu gën a ñaawee ñu koy teg ci deru son ko naan ko def na ko nii jëlee na ko ci position bii defee na ko te ñoom ñoo ne woon duñ ci wax mais après dem nañu ba commencé waa def na ko nii dugalee na ko fii génnee na ko fii lii yëg lii yëg lii yëg lii en fait c'est eux qui ont sa ce débat là c'est eux qui ont mis ce débat def ko un débat de pâquerette ba nga xam ne mu nekk débat wu borne indi ko tey jii ñi ñuy wax tey ay waxu vidéo mais tu sais la plus grosse farce yàggul ci fan yi ci ñii nga xam ne ñoo doon defendre Adji Sarr ñoom seen biir accusé ci benn vidéo 10 millions kii ne man maa jox diw 10 millions maa jox le transporteur Ahmed mbay mooy ngeer boobu mhm. le fameux frère de Adji Sarr mhm. ne moom moo jël 10 millions jox ko kii di euh, Ahmed Mbaye Ahmed Mbaye qui est considéré comme celui Euh, qui est le principal le principal euh, soutien de Adji Sarr parce que daanaka mbir mi bu muy am lépp ñoom ñaar la woon. Mhm. kooku noonu ñu ne amoon na benn vidéo 10 millions bi ñu fay benn clé USB bu ñu fay 10 millions pour am ci ay vidéo Ousmane Sonko mais c'est-à-dire que tey alors qu'on parle de viol alors qu'on parle de 14 morts c'est-à-dire on n'est pas l'État n'est pas en mesure de nous dire oui ces 14 morts là di lii moo leen rey wala diw moo leen rey. mais on nous abrutit avec des vidéos que kii man daal lenn laa xam lenn laa gëm ci li ma jàng xam ko mooy amul benn jigéen ci àddina buy préparer son viol préparer mooy maanaam ne bon euh, Pape dana fi ñëw tey dana ma siif maay ma teg caméra fii bu ñëwee ma filmer ko am preuve c'est une aberration c'est-à-dire boobu dès dès que dès que nga ak ak dem ak dem gisanteeg kenn nekk ko dañ maa su ma demal demal na nga am preuve. Euh, ci waay demal ñu sifaat la donc c'est-à-dire. en tout cas dès l'instant rek que le délit d'intention boobu mooy intention parce que yow boo demee bay teg ay caméra rek mooy que kon yow bëggoon nga ñu siif la. Mhm. donc dès l'instant qu'il y a ce délit rek mooy que on écarte le viol c'est-à-dire il n'y a plus contrainte il n'y plus euh, surprise. li nga xam ne mooy ay éléments yi nga xam ne qui peuvent être constitutifs d'un viol. const euh, euh, de tout ça Pape Sané est-ce que tey euh, taxaw à la barre Ousmane Sonko war na ko mën a mën a mën a nangu su fekkente ne li ñu fi wax yëpp yëpp yëpp y a aucune preuve bu nga xamante ni peut-être mën na ko incriminer à 100 pour cent notamment le certificat médical est-ce que tey ça lui coûte de venir à la barre ñu ñu plaider xool ba xam dëgg fan la féetee. en d'autres lieux en d'autres temps euh, man de man euh, su ma amoon lu may conseil Ousmane Sonko dinaa ne ko demal nga wuy ji je dis en d'autres lieux et en d'autres temps. Euh, su ma doon mën a conseil Ousmane Sonko dinaa ko dama wuy mais daal di ne. lu tax lu tax. ah lu tax lu tax fan yii passé dañu gis mu am àtte moom ak Mame Mbaye ñu tëj ko deux mois avec sursis amaan ko. deux cent mille non euh, dommage et intérêt ko deux cent mille yu mu war a fay Mame Mbaye Niang mais ci diiru lumatul matul weer maa ngi koy fàttali fii keroog alors qu'il y a plus de sept cent jeunes sénégalais sept cent sénégalais je dirais même pas jeunes jigéen ak góor yu nekk ñii ñu ngi ci kaso bi à hauteur de cinq cent et poussière ñi ngi ci biir kaso bi def appel ñii depuis juróomi at ñii depuis ñeenti at ñii depuis ñetti at ñii depuis at ñi ngi ci biir kaso bi di xaar. Mm-hmm. ñoo ñëpp seen dossier ñu teg ko fële Ousmane Sonko bi nga xam ne mu ngi ci biti di dox ay soxlaam ci diggante weer lu motul weer ñi bëgg ko ci àtte première instance bëgg ko ci àtte appel y a de quoi être suspicieux. ba pare woote chambre criminelle ba pare nag woote chambre criminelle may fàttali ni que keroog Aïda Mbodj mu ngi koy rappelé nee na ci ñaar diiru ñaari weer Ousmane Sonko uyu na juróom-ñetti yoon tribunal. Mhm. mais attends on est dans quel pays. où est-ce que Ousmane Sonko a plus plus de droits que les autres xoolal keroog bi ñu koy àttee euh, kii bi ñuy àttee première affaire bi euh, chambre criminelle premier jour. non keroog bi ñuy def cour euh, procès en appel bi moom ak ma Mbaye Niang mm-hmm. mais sur cinquante sept dossiers Aïcha cinquante sept dossiers en appel yu tribunal cour d'appel waroon àtte cinquante six yëpp dañ ko renvoyé téye bu Ousmane Sonko mais ça veut dire que quelque part mm-hmm. il une volonté de museler ou bien de nuire ou bien de rendre invalide et inéligible plutôt un candidat comme ça a été le cas avec Khalifa Sall ah. cest à gis nga fast track bii nag moom moo jur ay inquiétude moo tax ma ne la man en d'autres temps j'aurais dit à Ousmane Sonko mooy mais nii nii nii nii. Euh, je me dis dafay nekk benn tache tâche indélébile ci peut-être ci carrière am en tant que homme politique en tant que ki nga xam ne bëgg na nekk président de la République. oui mais xam nga on le dit. xam nga xam nga le délit de viol accusation de viol ça fait partie des délits qu'on dit les plus infamants mhm. mooy maanaam du yem ci yow da lay day lay topp yow topp sa njaboot topp sa njaboot topp sa askan mhm. kooku góor gu nekk am nga intérêt dem setal sa bopp mhm. mais je dis que dans ces conditions nii man li ma gis nii nii nii nii man gisuma ci li nga xam ne man sama wàllu bopp euh, mun naa ne y a des garanties pour que ce soit un procès équitable parce que dès le départ le jeu a été faussé léegi li ci am mooy benn le tribunal peut être très équitable peut être très prof, professionnel mais j'ai la nette impression ça c'est mon impression mooy que ce procès là mm-hmm. mooy lan teg Ousmane Sonko devant les Sénégalais di wax mm-hmm. avocat wu ndaw si di wax naan ko ba nga ko defee lii ba nga ko dugalee fii ba nga ko génnee fii yàgg nga ko kii nangam sangam alors que l'enquête préliminaire a déterminé que ndaw si musul am numéro téléphone Ousmane si musul seq ak Ousmane Sonko ndaw la la déterminé. Mm-hmm. mais tey ji waaw mais tey ji à la nga les débats sont libres. Mm-hmm. tey si mun nañu ñëw ne ko waaw euh, joxoon nga ko rendez-vous bërëb sangam. C'est-à-dire, en fait, moi, je crois que ce procès-là, c'est juste une volonté de le jeter en pâture, le discréditer mmh. une bonne fois de suite. Alors, euh, voilà. procès bi aussi lu mu jur bari na wax nga ko sànq rappel nga ay événements yu mars 2021 et ça a peut-être benn tension boo xamante ne nii perte nañ ci ay vies humaines yu bëri. 14 mm. euh, officiellement 14 yooyu noonu tey gis nañ saisine bu euh, Cour pénale internationale ki nga xam ne moo di maître Juan Branco. daal di euh, ressuscité waat mën nañ jàpp li nga xam ne moom moo di euh, décès wu euh, quatorze personnes yooyu lee est-ce que du nekk benn tâche boo xam ne ça sera difficile à effacer pour ce pouvoir la waaw xam nga nag. lii moom moo ko justice internationale mu ngi ciy nga xam nga nag problème mu CPI personne surtout kon cas wu Sénégal Sénégal dafa bokk ci li ñu naan état partie mooy état yi nga xam ne ñoo ko njëkk a signé. Mm-hmm. le traité de Rome bi instauré ces pays Sénégal dafa bokk ci dëkk ji moo tax ñu bokk tuddee leen état partie. kon sañu ko rejeté te problème mu CPI xam nga mooy lan. CPI xoolul tu es un ministre euh, en exercice xoolul tu es un général en exercice xoolul tu es un colonel en exercice xoolul tu président en exercice xoolul loolu moom li muy li ko intéressé. Mhm. mooy ndax si. les crimes visés les crimes yi nga xam ne dugg na ci son euh, son giron de compétence ndax ces crimes là sont avérés. Mm-hmm. moom looloo ko intéressé tey jii quand euh, les quelqu'un de la quand euh, la le charge euh, bon un membre de la communication de la CPI di génn di wax ni que ku bëgg a saisir yi voici les conditions nii ak nii nga war a jaar pour saisir yi nga gis ci benn moment l'avocat l'un des avocats d'Ousmane Sonko muy Juan Branco génn inviter les gens à produire toute preuve yi nga xam ne mun na ju mun na firndeel ni que y a ce qu'on des crimes contre l'humanité mm-hmm. xam nga crime contre l'humanité gars yi dañuy foog ne peut-être il faut nga mu nekk ay cent deux cent trois cent mille personnes déedéet ça dépend ça dépend du des, des types de crimes et dans l'espace mm-hmm. waaw mun na nekk dix personnes mun na nekk cinq personnes mun na nekk vingt personnes donc tey jii bu ñu remonter un peu jusqu'en deux mille vingt ñëw ci yi nga xam ne moo xew fii nit ñi di ko documenter à travers di vidéos ñu naan ay manifestant Sénégal dañ leen di rey à balles réelles ainsi de suite insi de suite insi de suite oui Aïcha tu as raison ça peut être une tache noire pour le Sénégal. Mmh. ça peut une tache noire pour le Sénégal Euh, beaucoup de pays tey jii euh, daanaka euh, seeni njiit soo ko xoolee nangootuñu tukki nangootuñu génn justement parce que quelque part seen askan wala ñenn ci seen askan séjour nañu ces pays su des cas similaires donc loolu c'est mhm. mais man damay inquiété wu un su fekkente ne peut-être Sénégal ndax dina respecte yenn kuréel yi nga xam ne bokk na ko au niveau international ndaxte xalifa euh, Sall comme Karim Wade am nañu ay ay ay euh, résultats yu am solo ci seeni sàkkuteef ci bitim réew bu ci mel ni Cour la CEDEAO mais ba tey Sénégal nangu ko nangu ko fësal ci ci ci ci liggéeyam est-ce que tey coopération internationale bu jógee pour kii walla justice du benn. non c'est pas c'est pas le même type de fonctionnement. c'est pas le waaw euh, xam nga. bu dee cour de la juge cour de juge de la waaw waaw cour de juge de la CEDEAO bu dee ces décisions sont exécutoires mhm. mais amul moyen de contrainte comprendre nga cour de justice de la CEDEAO décision bu jëlee décision la décision est exécutoire obligatoirement mais problème bi mooy moyen d' exécution mooy doole bi ñu koy exécuter nañu amul mooy maanaam mënuñu ñëw wàññi loxo Sénégal pour mu exécuter alors que pour le cas de la CPI c'est c'est c'est c'est c'est c'est pas c'est différent Mm-hmm. waaw pour le cas de la CPI c'est différent la CPI peut émettre des mandats waaw peut émettre des mandats d'arrêt la CPI peut geler des avoirs à l'étranger mm-hmm. la CPI peut c'est-à-dire à un rayon illimité bi nga xam ne permettre dana ko permettre mu teg loxo teg loxo nit nit waaw xoolal euh, xoolal kii le mas le le génocide rwandais. Mhm. Euh, y a y a y a y a quoi y même pas euh, un mois un ancien chef de police mu ngi noonu ñu téye en France nar ko jugé et xool le génocide c'était depuis quoi depuis mhm. Mhm. mu ngi noonu donc pour dire que lii nga xam ne mooy le cadre et surtout le rayon d'action de la CPI wuteeg na. euh, le rayon et le cadre de la Cour de justice de la CEDEAO. Mhm. Mhm. alors euh, su weesoo loolu euh, on se demande tey ci euh, taxawaay njiitu réew Macky Sall lan la war a doon su fekkente ne affaire bi yegg na ci cappaandaw bu Cour pénale internationale jëlal dossier boppam en ah, main lan la lan la war a nekk taxawaayam ji ko ba tey procureur autosaisirul par rapport ak seen seen nombre seen nombre décès non mais cest dire euh, de l'image du Sénégal ah qui mais c'est c'est c'est c'est c'est pas l'image du président mais yoon la tamit ñu ñu ñu craindre pour l'image du président xam nga ndax la parce que on a un président qui est encore jeune. Mm-hmm. Euh, qui peut servir à l'international. Ah qui peut même aller et revenir se représenter nekk président de la République. Mm-hmm. donc euh, c'est c'est du moins ce qu'on lui souhaite mooy que. mu génn génn bu rafet génn génn bu rafet. et tout du gàtt du gàtt et tout voilà mais. Euh, tey su yu mel ni CPI su ci duggee dafay garaaw xam nga ndax lan parce que am na dëkk yi nga xam ne ah seen i njiit seen i ay njiit ministre et consort wala seen colonne seen chef d'état major général d'armée gendarmerie wala ñemetuñu génn ci dëkk bi. Mm-hmm. ah non ñemetuñu génn ci dëkk bi parce que ñoom comme ni ma dañu am pouvoir ba nga xam ne. mais ñenn sax dañu exilé. doo déedéet doo génn si rek boo exilé ñu jëlee. maanaam dañ leen a contraindre à ah, sa que ñu reste ci kër gi. ah déet ci obligé nga teg sa ba pare nag loo amoon bitim réew ñu teg ci loxo mooy benn ñaar sa njaboot bu ñu la sa njaboot sax dañ koy tere mu génn. xam nga loolu c'est c'est c'est c'est extrêmement grave. Mm-hmm. bon loolu ñaan mënuñu ko ñaanal celui qui a été pendant presque douze ans notre président de la République. Mm-hmm. mais quand même on peut on doit attirer son attention par rapport à ça. voilà on doit attirer son attention par rapport à ça. Mm-hmm. parce que Sénégal daanaka problème yu fi mës a am c'est autour de la table ñu ko doon régler. alors si autour de la table boobu sax ci la ñuy jëm nga xam nga ne Sénégal c'est un pays de dialogue mmh. aujourd'hui on parle de dialogue mais affaire semble vraiment